tu wax euh, Diomaye dafa pauvre wala dafa riche. daa am ay bor. dafa am bor yee ëpp li mu am bor yee ëpp. ah man man man l'actif disponible ne peut pas faire face xaw na kii de. xaw na am affaire de mais pour un fonctionnaire qui a fait ans de service loolu warul mën a doon dara. non surtout nekk nekk impôt yi domaine def 15 ans. Amadou Ba il a fait combien d'années là-bas plus Ba. Euh, ba lii la génne Amadou bu doon génne. Amadou Ba retraité la ëpp na 60 ans. xam nga bu doon Amadou Ba lii la génnee ñëpp dañuy taxaw ne way wax dëgg Amadou nag lii mais mais Diomaye la wax. Bas euh, Diomaye. Ah. déclaration non il est déficitaire je te dis. dafa bëri bor moom Diomaye. ma euh, boo xoolee actif bi ak passif boobu.

Il euh, fonctionnaire milliardaire, yi ñuy wax. milliardaire. au contraire euh, donc quand jàpp naa euh, sa déclaration de patrimoine effectivement reflète sa personnalité. ak l'immunité qui ñu jaay ci transparence en tout mmh. cas man quand même ça me rassure. Mmh. bon maintenant. ñu ngi xaar mais mais pas est-ce que ñu ko def challenge gars déclaration de patrimoine. exemple à suivre Diomaye yow yow njàpp loolu sa déclaration de patrimoine man laaju ma dara man man man su ma neexee ma yor ay milliards ma laaju ma laaju ma laaju ma dara te ma liggéeyu ma si si public privé laa nekk laaju ma dara njàpp nga def ko rek ñu xool ah, ñu gis nga partage ma dara tu as combien de terrain <laughs> tu as combien de ñaata oto nga sama boo boo demee sama dëkk maam yi euh, hmm. foofu bëri neen fa ay tool mais foofu amul amul benn valeur ah oui loolu amul benn valeur donc tu as beaucoup de terrain euh, non loolu yëpp laaju ma dara salam ji yomb loon dafi dafi de gis nga gis fi mu jëg man sa yoon ne aussi salam ji boobu dafa garaaw de joomaay en tout cas candidat yëpp war nañ def ni joomaay ah nañ wax li nu am parce que déclaration de patrimoine du problème bi de après la bu président def ans bu paree day defaat déclaration de patrimoine ñu xool ndax yokku na. am waaye c' est à dire bëggoon bëggoon naa gis bosam moom. mais Ba Moussa Ba Moussa loolu loolu loi bi encadré ko génn bi. génn bi amul boo dugg la loi bi wax. non loolu mooy problème bi. loolu mooy problème bi paradoxe bi ah, foofu bi dem day jël bagage bi dem ni euh, du a bi euh, amul mm. moom de le deux bu jotee ngeen am président ngeen ñàkk am président moom tàggoon na ngeen. non non non non Non, loolu ah. et j'ai entendu des gens dans le mais mm. c'est la loi qui l'exige mu impérativement. ah l'article 36 de la constitution. non mais non non pas conseil mm, le 2 non non attendez attendez attendez conseil constitutionnel. Mm-hmm. Euh, fi wax président assemblée. c'est que nous démissionner avant le 2 mais à partir du 2 non def na ko mais loolu loi de politique non boobu def sa mandat bi le 2 lay jeex. mënoo organiser élection au delà du 2. parce que le 2 président assemblée nationale mo ñëw wuutu la. kon bobu sax lañ né conseil bi dafa régler walé problème qui remplacé Macky bi conseil bi régler walé nako non mm. Moussa ci décision boobu. waxtaanee non non nañ gëné décision mu xol non non conseil bi non. non man problème bi nekkuma sax ci conseil bi. Ah. je suis je suis sur la loi. Ah. ok c'est la c'est la loi. Mm. c'est la constitution elle-même qui dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. mais le lépp normal là ba Moussa. Waouh. Le normal mais le normal Le lépp normal la. defal correct. rek le mhm. article 36. Mhm. xam nga bi doon wax boobu amaguñ dama en question n'est pas applicable s'il y a une élection ou s'il a pas d'élection avant le 2 l'article n'est pas applicable. Mais s'il y a élection après l'article devient applicable. Hmm. Parce que l'article, il y moment où il y a élection, mais installé euh, qui nous fait. Hmm. Donc le président reste en fonction jusqu'à son installation pour une vacance de pouvoir. Hmm. Mais donc, comme président, le mandat est mais élection avant le avant mandat am il a l'obligation constitutionnelle de rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur mhm. le conseil constitutionnel il doit ne loi bi lijjanti na donc donc conseil constitutionnel vous suppléer ci mhm. conseil constitutionnel regarde garder la constitution donc il que nous, moment bi nga xamante le avant mandat am à terme l'élection bi avant mm. le 24 mars donc le 2

Mais premier tout premier C'est-à-dire euh, que les gens n'y, aillent pas par euh, euphorie, pas Voilà, Bok Boga, Def Amadouba, euh, un acteur politique puissance zéro. Mm. Ah non, loulou, loulou, c'est fallacieux. Mm. C'est une possibilité. Mm, Et je viens de te dire que les deux avec ces deux prestations, montrent que ni Amadouba attention am non euh, le... Euh, naan Amadou Ba. donc amul xam peut-être waxi ku far rek ngay voilà euh, c'est un grand monsieur mais mais mais mais ak oui ñoo bokk même formation professionnelle. donc mm. même déformation professionnelle. Mm. même formatage professionnel. je mm. parle de la profession. en tant que corporation bi beaucoup bokk mais Amadou Ba effectivement il s'y connaît. il a été professeur d'Ousmane Sonko. Eh, oh, justement parce que des jàngale ENA ah, aussi ah, ah, donc donc. donc donc donc euh, réduire ko au néant nii foog nga da ngay ñëw ray ko mm. jéggi. Mm. loolu loolu loolu waxi caaxaan la. loolu loolu wax kay justement non parce que li ko teg fii mu nekk nii loolu du ay caaxaan de como mënu ko. Ah, alors donc kon foog ne da ngay ñëw rendi ko jéggi facilement loolu dalay permettre nga dormir sous tes lauriers. Mm. Attention. Alors donc, chibir Sénégal, euh, tu vois Amoudouba, bat campagne aussi. Mm. Ah, il draine des foules. Hein. Mm. Je ne sais pas si euh, euh, c'est l'effet milliard ou non, mais Amoudouba, draine des foules. Amadou borom kham kham le. Lolo mom, ken mounou koko, mounou koko, Alors donc, comme probabilité euh, dem second tour mom moy yóbbu effectivité à au président de rester en fonction jusqu'à ce que mu passer service ak ki nga xamantene moy successeur lolu mm. loolu du luñ koy ñaan ci njëkk parce que momit mu ngi bëgg tam lolu quoi loi bi day nekk ni ah. mu naan ñaanal ma ci njëkk mm. nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs li leer leer leer leer muy taxaw naan ñaanal mako ci njëkk mm. bi ba tamit ay ñaan ci njëkk amu ci de il a l'obligation de rester en fonction jusqu'à l'installation de son successeur Merci beaucoup, Pamoussa. Ça a été un plaisir. Le plaisir euh, est partagé de rester à télé bu à journaliste bu